Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk àdduna asalaamaaleykum mbokk ñi nga xamante ni yéen a defe naa ni amaat nañu mbégte bu baax a baax a baax a baax bu ñu nee mbégte tey jii am na loo xamante ni boo boo nee ci jàkk rek kenn dootu ko laal naa li mu doon jëmm ji nga xamante ni mu di Bass am na loo xamante ni kenn dootu ko naa nga xamante ni mu di biir Pikine bii te yaakaar naa ne boo nee café rek saxar am na fu mu jëm waaye tey bi ñu ko fekkee tey ci biir place am bu toog ànd ak mbokk Baye Fall nekk ci waar bi tey émission bi nga xam ne moo di émission tekki fi tey ji ñëw bett ko fi tey ji ñëw fekk fas yéene jàkkantoo ak moom mais dafa am loo xamante ni dañ koo fekkte mu sol ci set boo xam ne ci set bu yéeme mooy Cheikh waaye mbégte man bi muy gën a am mooy bi ngeen di si image bi mooy leeru sëñ Cheikh ummi mu sëñ Fallou koo xamante ne sëñ Fallou mooy maamam sëñ Fallou bu ñu nee sëñ Fallou ki waajur ñu nee Serigne Touba kon yaakaar naa jëmu jooju tamit bu ñu bettee tamit ñëw fekk ñu fi tamit yaakaar naa ne xéwal am na mais balaa boobu noonu dañ koy bàyyi mu ne parce que ñu lay ziar. ñu la leen bu baax euh, bu baax xam bu kawee kawe barke nuyu mbokk daal bi mbokk Pikine gi yëpp ak client yi wax dëgg yàlla ñi may jàppale ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi leen nuyu macha allah yéen a ko gis li nga xamante ni euh, Bass nuyoo na ko mais Bass tàmbali waxtaan bi suñ bëggee xam kan mooy Bass fi mu jaar tey ba yegg si fii parce que ci lan la jaar ci loo xam ne bu ko fàttali ko xalam am ci lu mu ne. waaw bas moom ñuy jaar ci daara si fàllu bi fàllu bi moo ma yar moo ma tudd moo ma yar ñu tudd ma suñu bisiru tamit ma nekkoon ci daara ji nag doon tërbeewu doon tërbeewu nekkoon ci daara laxasaa yi doon bay depuis quatre-vingt-dix-neuf ba deux mille douze laa jógee daara ji ginnaaw suñu borom dogalee ma jógee ba léegi nag bi ma ñëwee léegi moom yënguwuma ci dara loolu café te ma commencé yëngu tamit si kii xam yàlla cafe gi na euh, ngi ciy gis seen bopp bi nga xamante ne tey jii am na ci kafe léegi njaayum café léegi ñu ci bari ñu ngi ciy ndax ñàkk am lu ñu def wala ñàkk xam secret bi ci nekk ba tax buñ koy jaay sax duñ ko farataal comme ni nga xamante ni moom lañ ko war a mën a liggéeyee. mais tey jii boo toogee naka nga def ba sax xel ne tey jii dama war yëkkati café teg ko ci buntu kër gi di ko fi jaay xel mi ci lan la ñëw. waaw wax dëgg yàlla man bi ma ñëwee fii. dama samay gars am na benn bikki bu nekkoon fii ci kanam kon naan Momadou. boobu jamono moo fi doon jaay café. ginnaaw yàlla jamono bi bi fi ñëwee nag tombeek moom muy déménager di génn léegi benn tàkkutaan lan toog nii rek fekk boobu maa ngi ñëw amul lu ma war a def fekk am na maire bi am na ku ma boole loon ba kooku ne moon naa ñëw bi ma ñëwee mooy laaj xaalis ma ne ko instant bi man mooy doog a jóge daara ji man euh, pour l'instant nii ku ma jàppale laa soxla pour mën a am départ ginnaaw yàlla si leen taxaw toog di waxtaan noonu rek gars ma ah sa waay café gi instant yi café gi manqué na fi de bi na fi gars yi ne ma dugg si café gi mooy leen ah waaw loolu donc kii bi ñu ko waxee automatiquement rek damaa jóg wut fourne dem jënd dem dem ci bigit bi jënd genn waa libre café ak suukar genn waa libre teg bi ma jaayee rek mu jeex gars yi ñëw wuyu ci ma xëy def loolu affaire yi commencé daal ba may dem bay jënd ay saaku suukar ak ay saaku café wax dëgg yàlla si noonu laa commencé waaw maanaam daal gi daal ci maanaam buñ ko buñ ko maanaam ci ni nga mën a xamee daal mooy yàlla mu ne ci suturaal tey ji am nga loo xamante ni tey ji am nga ko ci nee nga ci nga takk soxna ci nga ngénte say doom mbégte gi ak xalaat bi ak sori si tey boo toogee nga jékki-jékki gis ñi nga xamante ni maanaam léegi dañ ciy commencé dugg te xamuñu mbir mi secret bi lu mu doon tey ji ñooñu tey lan nga leen di lancé. waaw café gi moom dinaa la xamal leen moom boo ci nekkee moom nay sell rek café moom nay set sell neex en même temps tamit euh, bagage yi nga xam ne moom nga utiliser di ko euh, mooy siwo yi nga xam ne moom mooy segg café gi ak thermos yi moom day set loolu dafa war a am essence dafa war a set wecc loolu mooy waral ne kafe gi ak ba pare café gi tamit da ko war a jaar la yoon defar ko bam ba mu rafet soq ko boo bu amoo temps soq ko nga tànn ko ba mu set nga nga dem saablu ko toog saab bu mucc ayib ñu defaral la nga xool sa tànn jar ba mu kii waaye eh, du caangi dina café da nga ciy dugg rek maam xamoo lu café café woo nga dugg ci rek bëgg ci am dara wax dëgg yàlla loolu loolu moom d'accord ko moom loolu moom d'accord parce que man mii tamit wax dëgg yàlla fi mu doon nii may wax yow yàlla xay na xam gu ma xam kese moo tax mu mu noonu waaw loolu daal mooy mooy mooy mooy yëf yi daal mu koy wax sama mbokki jaaykatu kafe yëpp moom nay silwise tey set daal tey neex parce que nit ñi kenn moomu leen nit ñi moom bu neexee rek nga gis leen bu neexul doo leen gis amatul complexe boobu Sénégal yi moom amatul ko lu neex la nga xam waaw te wax dëgg yàlla koñ bi moom wax dëgg yàlla maa ngi fi sant yàlla bu baax euh, moo Maodo mi moo fi dalal Cheikh Maodo waaw bi may sanc fii nii boobu maa ngi woon ci ay trop trop am na ma njëkkoon nekk foo xam ne dem nañ ba am ay xat-xat yu ma fa commencé woon di ma fi kii ndax kii waaye si la ma woo bi mu ñëwee mu ma tegal fii place bi ne ma laaju ma la dara nag wala la sim courant bii nii yow ko sax du ma ko def benn jour laa rëcc la jox maire bi ñaar téeméer munoo bu ma ko defe defati merci wallaay ba nii ma wax yow te chaque jour damay taal courant kër gi fi laay roote ndox fi laay defi lépp wax dëgg yàlla yaatal lan ma jàppale lan ma daal parce que dafa gis ni amoo ci loo jàpp parce que yaakaar naa ne ku nekk 99 jaar ko ci daara jàng ko la tey nga yegg si kon am na ñoo xamante ne tey bu jugee tey ngir bëgg am nga la waay nañ leen dimbali parce que li nga def ni exemple la tey ji ki nga xamante ni bëgg na xëy te amul métier tey bëgg na jug tey ngir bëgg suturaal boppam te amul fenn fu mu ko mën a jaarale kon kooku yaakaar naa bu jëlee dara teg ko fenn di ci yëngatu kon li man li ma gën a bëgg mooy nañ ko dooleel mais tey secteur bi gis naa ni café gi daal defe naa ne fii mooy coow li parce que buñ ne coow li mooy diggante bi ñu fi toog nii rek nit ñaa ngi commencé jug di dugg di génn ba sànq gis nañ fi sànq benn femme di ngeen ko gis léegi ci écran yi femme bi indi na kaasam bu mag jënd si kaas café ba fees daat dem mais léegi ñi nga xamante ni tey ji maanaam dañuy jël di defar café te am na ñoo xam ne nag dañuy dem dañuy dem jël ay sase yoo xam ne dañuy ñëw rek segg segg sase yooyu mais yow sa xeetu segg ci yan ci yan xeet ngay seggee da nga dem jënd sase wala da ngay ñëw jënd kafe gi saafal ko sa bopp ba pare continuer liggéey ko wala waaw kafe bi moom damay dem jënd moo jëndee comme tey café gi day am quantité ndax bëri na tamit ay façon café waaye nag yow yaa xool café qualité bi nga xam ne moom mooy moom mooy café bu baax bu normal bi nga jënd ko même bu dee day seet sax nga jënd ko ngir client yi nga xam ne ñoom nga koy jaay pour bu ñu ko naanee man ci am contentement wala ñuy am benn plaisir boo xam ne dinañ ko si yëg waaw café gi moom man maa ko jëndal sama bopp ma dem saablu ko la si jar ma def ko li nga xam ne moom mooy mooy nombre café bi daal nga xam ne jar bi du ëpp du yées du manqué daal waaw man daal sama café noonu laa koy def moom wax dëgg yàlla waaw dina sell daal dina set dina sell dina neex moom ñi nga xamante ni maanaam tey dañu nekk fu sori dégg sa tur bëggee ñam sa loxo bëgg naan sa café tey jii dañ leen di may tuuti ci benn affaire mooy lu musul am dinañ leen ko wan tey pour ngeen gis ko tey jii ñun fuñ musaan jug rek dem dóoriwaat fa rek am na secret bu ndaw wax dafay génn mais fii secret bi nga xamante ne tey dafay génn dafay yéeme parce que leeru sëñ Cheikh Oumy mu sëñ Fallou tey moo fi jaar kon loolu mbégte la ci biir xéewal yi kon am na loo xamante dootuñ ci sori mais barab boobu ñi nga xamante ni tey dañoo nekk yenn béréb comme ay Kër Massar wala Dakar parce que da ngay jékki-jékki gis koo xam ne ab député la bëgg naan kafe gu tàng day bëgg naan café gu tàng tey ji bu bu pare ji ngir contact ak yow tey ngir bëgg yow nga livré ko café gi wala ilaa nga ñëw defaral ko café këram yow naka ngay mën a est-ce que est-ce que déplacé loola du jafe dëgg yàlla café moom moo xam nga am xew bu mu mën di boo ñëw boo ñu commandé bu ñëwee dinañ ko defal ni nga ko bëggee te tamit ku ko naan tamit dinañ la laaj ne la café gi moom fan nga ko jëlee parce que euh, moo duggee maire bi maire maire du Pikine maire gi moom xam na café gi moom moo duggee maire moo duggee ñëw na fi moom ñëw na fi ñëwati moom moom boo ko ku ko laajoon nii moom xam na kafe gi bu baax moom xam ne tamit bërëb bi moom parce que boo boo gisee ma laaje loolu tey jii xam nga tey ku ci mel ne ay ñoom Modou Gueye nekk nekk nekk nit ñoo xamante ne tey jii moo fi nekk maire ba pare jiite loo xamante ne tey jii xam nga ni kon kooku nekkul nekku ndaw tey jii député yi ak ministre yi ak ñenn ñi nga xamante ne dañuy bëgg ku leen di defaral kafe gu baax koo xam ne day bëgg ngi maanaam day xam nga kafe gi moom nit ki moom foo mënti toog rek saa yaa ngi bëgg lu tàng nga di ko naan mais tey député yeeg ministre yi ak ñi nga xamante tey dañuy bëgg tey ji contacter ak yow ngir bëgg yow nga déplacé wu ñëw pour defaral leen ñoom li ñu bëgg après pour nga dem waree ñoom bu ñu bëggee commande pour yow nga defar leen commande est-ce que affaire yi du metti du metti en 100 pour cent. non non du metti du am benn problème. du am benn problème wax dëgg yàlla boo ñu soxlaa moom wax dëgg yàlla du am benn ni nga ko bëggee moom dina am essence dina civilisé dana sell dana neex daal ñun daal suñu café daal café yi bëri na nag moom wax dëgg yàlla tey tur bi lépp café la waaye nag seggi ni ak ak ak ak café yi amaana si nit ñi si personnellement bi lay nekk waaw loolu moom xam na nañ ko bu baax moom waaw loolu moom si nit lay nekk moom tey jii ñi nga xam ne tey jii am na ñuy commandé suuf ne nañ numéro Baye Fall bi lañ soxla numéro Baye Fall bi moo ñi nga xamante ni maanaam bëgg nañu café ñi nga xamante ne bëgg nañ à chaque fois seen lam nañ di saf lu neex tey ji ba numéro téléphone nga leen di jox boo xam ne saa buñ ci contacté 24 heures sur 24 lu ñu soxla nga livré la. waaw numéro bi moom mooy 77 917 0011 waaw numéro de Tigo bi la 76 419 66 44 waaw loolu daal mooy ñaar numéro yi waaw. ji yéen ñi nga xamante ne tey ji am ngeen ngénte muy mariage muy gàmmu wala muy màggal nga bëgg café gu baax café gu kafe goo xamante ni saa bu sa bopp bi di métti boo ko ñemee rek sa bopp sedd kon bërëb baa ngi nii da ngeen di jug ngeen waaxu woo ko ci numéro téléphone boobu heure bi ngeen ko bëggee ak fa ngeen ko bëggee dina leen ko defal te dina leen ko livrer kon gëm naa ne fi mooy bërëb bi te ji dernier kàddu yi ñi nga xamante ne tey ji secteur bi lañ dëkk nga dëkk ak ñoom ci secteur bi ñu gis ñu yow taxawaay bi nga xamante ne yow ñu ngi koy taxaw ci yow ak jàppale bi nga xam ne yow ñu ngi ñu ngi koy jàppale ñu bàyyi la nga tudd seen i tur sant leen gërëm leen balaa émission bi waaw wax dëgg yàlla sant yi moom bu ma koy def dama ko commencé Cheikh Maodo mii wax dëgg yàlla moom mooy sant moom moom laay commencé ndax de mën naa ne fii moo fi sama jëwriñ sant waa juróom bi jigéen woo xam ne soxna Oumy Sarr soxna Oumy Ba moom mooy waa juróom bu jigéen wax dëgg yàlla moom tamit di ko baax te tuur ñooy yendoondoo ba heure bu ma neex wax dëgg yàlla mu boole li ko neex ak lu ko naqari yëpp coow léegi buru beeg yëpp ci fenêtre am nekk waaye wax dëgg yàlla lépp da koo boole jàpp ñu comme ay doom yu ñu jur loolu nag wax dëgg yàlla ñu am ci contentement bu baax te mu nekk tamit loo xam ne nii wax dëgg yàlla lu rëy la loo xam ne duñ ko fàtte te duñ ko mës a fàtte ba ilaa yéeni diin ñu ngi leen sant nag di sant suñu mbokk nga xam ne ñoo fi nekk muy alaaji Malick mi Malick moom moom moom essay moom moom waaw moom moo nekk ci baar bi ko moom moo nekk ci kaw xam nga di xel café gi di jaay gaay ak ku mel ne Ibrahima Ibrahima Ibrahima Ibrahima Ibrahima Gaye ak Maysa ay ñoom maam Thierno noo yi ñoom maam góor ñoom Dame Kassé gars yi ñoom Abdoulaye Sall siyaar ne ñoom Xaadim Bey ak ñoom Modou Mbaar gars yi daal bëri nañ ku lim daal da ngay juum di siyaar tamit suñu mbokk yi nga xam ne ñoo toog nii te dëkkandoo ñun ci mel ne Cheikh ak Paa Jaga Sow suñu papa ju baax ja tamit yàlla ñoo ngi koy siyaar bu baax waaw ñun daal wax dëgg yàlla waa ko ñu ngi leen siyaare di dëgg yàlla gis nañ jàppale gu ñu jàppale ak taxaw gu ñu taxaw ak doole gu ñu doole parce que bu ñu jàppale dëgg yàlla kafe boo si nekkee bërëb koñ boo xam ne daanaka 2012 ba 2023 yaa ngi fa mosoo puus mosoo paas ba pare di xëy di am jàmm nit ñi di la yéene seen xaalis ba boo jaayul sax am ñoom dañ lay woo di mer naa lan moo tax jaayoo nga xam da ngay dem man fi mu doon nii mënatumaa dem génte mënatumaa dem mariage. parce que parce que ni ku ne bu ni ku ne budul liggéey loolu ngay ñaan. waaw waaw wax dëgg yàlla fi mu doon nii mënatumaa dem benn. waaw dama naan gars yi daal ku mu am xew te gisoo ma tamit nga comprendre te xam ne liggéey moo àgg foo xam ne nii wax dëgg yàlla moomatuma sama bopp. maanaam nit ki buy ñaan day ñaan yàlla loo xamante ne da koy avancé loo te nit booy ñaan yàlla da ngay ñaan yàlla bañ a am jot. man sax ku ma xamoon démb ak xamate man jot amatuma ko temps bi nga xamante damay nekk fenn di ko fa waxtaanee temps maa ngi xool leneen lu ma war a a defi kon nikki ki nag bu ko kenn meree ci ñàkk jotam bu ko kenn meree ci temps bi nga xamante ni amatu ko ngir ñëw fekk si la ndax nit ku ne ñaan yàlla saa yu xëy di am ci loo nekk tey ñi nga xam ne tey dañoo am seen doom seen doom bëgg a ñëw roy ci yow tey exemple bi ak ñi nga xamante ni jeunesse parce que léegi jeunesse léegi liñ tàmm mooy lu oto bleu sama papa am na xaalis sama yaay am na xaalis du ma liggéey non bul def loolu li ma bëgg mooy defal ni moom fexee dóori waar boo amul métier te mu ne mënoo am métier tegal sa place di jaay sa kafe café kaas fukki dërëm la waaye dégg nga li mu wax nee na kaas kafe ci la takkee jabar ci la ngénte ay doomam kon kooku am na jom kon kooku am na loo xamante yàlla su borom suturaale na ko kon tey jii nag yéen ñi nga xamante ni yéenay commenté noonu ci suuf dëgg la mbir maa ngoog muy maanaam comme tey li ma la wax ne café gi maa ngi ci sama bopp nga xam ne ngénte naa ci takk naa ci soxna te sama soxna tamit bi ma koy takk li ñuy may jigéen laa ko may wax dëgg yàlla xëy bu ñëwoon ci benn côté ngénte leen tamit wax dëgg yàlla def naa ci li nga xam ne moom moom la def si ngénte li samay nawle def def naa ko man daal li ma doon ñaan mooy wax dëgg yàlla bu ma amoon lu mel ne warukaay ndaxte li may wax yow nii am naa sama permis lijjanti naa ko moom amoo lu mel ne warukaay daal nga xam ne fu ma waay soxla rek moo xam muy. loolu moom Modou Gueye Modou Gueye Modou loolu moom loolu moom bu ma ko wax dëgg yàlla moom dina nekk loo xam ne nii day gën a jàppale liggéey bi moom ndax parfois dina am dina am ay déplacement yoo xam ne nii ba même bu la xaaree nii ndax pour nga déplacé wu day xaw a métti nga war a jënd bagage wala yeneen ak yeneen day xaw a métti bërëb bi ñaari bërëb la am na bu nekk fii kandi moo nekk ci ginnaaw ku ñu jàmbaar fa nekk waaw foofu noonu xam naa bu kiyee sax yow après di ko jël fa la bagage nekk daanaka fii comme que na xat goo xam ne nii daanaka mënuñu fay def yenn affaire yi dañuy xaaj affaire yi def kii lii def kii lii rek waaw. loolu sëñ Xaadim borom ADS sëñ Xaadim borom yàlla rek kay buur damaa bëgg nag sama jëmm ji baax baax yi ngay def ci réew mi li ngay jël di ko dimbalee ak Sénégal nee nga képp kuy liggéey te doy di dóor waar sàccoo tuxoo naanoo lépp loo mën ci def te mu nekk loo xamante ne ci lu lew la sama alal di nga jël dugal ko fa. kon nag damay ñaan yàlla comme ni ma ko defalee woon bee passé ci malade boobu nga xamante ne feebaroon na nga jëloon sa doole dugal ko ci kon sëñ Xaadim borom yàlla rek kay buur damaa bëgg caabi oto bras décembre fii caabi oto laa ko joxal ma ko ko nga xamante ni fépp ko Baay Faal woo si kattanu suñu borom dem daal di ñëw tax parce que ñun lii la ñu gëm Modou Gueye maire Djidah Thiaroye Kaw wax bi tamit bërëb bi sa bërëb la fii kër la moom na xam nga ko baax a baax kon nag la ngay defe ci sa mbedd ma ñëwal nga def ko fii parce que lii entreprise la parce que bu ñu entreprise mooy ki nga xamante ni buggut a sàcc koo xamante buggut a nekk ci loo xamante lu dul neexul yàlla te ci lu mu nekk nag ci lu neex yàlla kon Modou Gueye bon message lañ lay jox mooy nga ñëw taxawu askan bi nga xamante ni ñoom ñoo fi ne sama waa ji nag ci ñun moo ko caañeeko mais sëñ Xaadim bu def yàlla dafay dund man moom wóolu naa ko foofu ndaxte fu ma ko mos mu jaar fa def ko dernier kàddu yi ak waaw comme di leen sant ak yéen ñi wax dëgg yàlla di sant Samb nga xam ne sa waajur wu góor ñi. non sa papa non sa papa kooku non màgget la kooku kooku màgget dëgg yàlla parce que moom moo yombal affaire yi parce que kooku wuy ma li li wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma li mu war a ngay da da xola xola xola li booy boobu di wax papam Bécaye Mbaye man loolu laay wax sama père sa wuy ma màgget nga demal fii maa fi ne man maa yor fa laa bi yàlla moom moom dañ koy sant wax dëgg yàlla ndax rek ku baax la ku yàgg si jëw ami la figin ñëpp ko xam wax dëgg yàlla mel démb ak wut ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko ci kanamu njabootam lool yëf yi nga xam ne moom mooy seen bi suñu borom yokk bu am ay seeni seen i seen i Salam Vision bi daal yàlla nekk ay télé télé télé télé dégg borom doole yee borom dara ji ñu fay dégg barkeb Serigne Touba loolu daal ñu ngi koy ñaanal di siyaare mbokk taal bi yëpp leen ñaan jàmm tey ci yokkute aaj ji fa joxe na numéro téléphone baa ngoog yow mi nekk biir Dakar bëgg naan lu tàng bëgg naan lu sax suukar bëgg naan café boo xamante ne boo ko naanee sa xel xolal léppay dal kon contacté ko ci numéro téléphone boobu nga gis ni moo nekk ci écran bi kon ñeen waa Touba café gu baax café gu neex fii ji biir Pikine Parcelles Guédiawaye dama ne leen café gi ëtt bi képp ku ko soxla fii nga koy fekk kon bërëb bàngoog di dox di daje ndaxte lii lañ leen indiloon ci seen émission tekki fi yow mi nga xamante ni nag da nekk ci bërëb bëgg wane bëgg ngir ëllëg nit ñi jàppale la ci émission bi nga xam ne moo di tekki bi numéro téléphone baa ngoog boo ñu contacté dinañ la wuy si ku dul dóor duñ ko jëli ku nekkul jàmbaar duñ ko jëli ni ku gëmul boppam duñ ko jëli kon képp ku ngeen gis suñu biir émission rek ñu wane ko rek daa gëm boppam xam boppam xam fi mu jot a jaar mooy waral ñu dem jëli ko kon Mbàkke kon kontaan nañ ñu ngi am jàmm di leen joxaat dig daje incha allahu rabbi ci beneen émission ak yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy topp ci émission tekk fi